dañ fi ñëwoon tey ñu ngi fii si nouveau lycée bi pour terminer tournée boo xam ne chaque année dañ koy def du dee jàngale bi da door na fi au niveau du département ñu ànd si délégation bu rëy bi pour visiter donc l' ensemble des écoles au niveau de la commune lu ñuy jàpp rek mooy euh, bu ñu visiter donc euh, écoles yi lu ñu remarqué mooy daanaka personnel bi yëpp mu ngi sur place mais euh, jàngal bi dese naa door si école publique bi parce que foofu aussi élèves yi ñëwaguñu bu baax léegi si public si privé bi moom jàngale bi door na parce que foofu élèves yi ñëw nañu ba commencé nañu leen jàngale bi bu baax donc dañuy ñaan parents d'élèves yi ñu wax ak seen doom yi pour ñu jëm dem si école yi pour que ñu commencé jàngale bi en tout cas wax nañu joxe nañu ay institutions yoo xam ne même du yi deux trois quelques élèves yi fa nekk rek il ñu commencé jàngale bi aussi parce que loolu moom mooy suñu wareef parce que loolu lañ ñu sant pour ñaaxaat parents d'élèves yi pour ñu waxal seen doom yi ak sensibiliser bu baax a baax pour que élèves yi mën euh, donc regagner classe yi pour que ñu commencé jàngale bi nu mu gën a gaawee parce que comme ni ko xamee année bii dafa nekk benn année bu particulière parce que dafa nekk dans un contexte électoral donc nu ñu gën a gaawee di commencé jàngale bi mu ñuy gën a jàppale di jàppale élèves yi problème bu ñu njëkk a remarqué rek mooy en général au niveau de la case des tout petits boobu buñ fa demee aussi gis nañu conditions yi foofu dafa xaw doy waar lool pour euh, tout tànk yi parce que bâtiment bi foo commencé yàgg de aussi dafa xaw a xat pour euh, élèves yi donc ñun duñu pare dinañ def benn rapport envoyé ko niveau central pour que ñu jéem ñu tabaxal beneen case des boo xam ne si modèle yu bees bii la parce que am na beneen modèle boo xam ne moo gën a ngand moo gën a rafet du booba élèves yi dinañ nekk si condition yu mucc ay de telle sorte que am benn difficulté beneen aspect bi mooy courant bi gis nañ ko ndox mi foofu am na problème dinañu wax maire dinañ wax seen pour que ñu indil nu mu gën a gaawee ndox mi parce que aussi mënuñu feer di indi xale yi foofu di amuñu ay nu ñu amuñu ndox loolu aussi dafay xaw a doy waar loolu daal dinañ ci taxaw bu baax a baax beneen aspect bi buñu ñu am mooy lycée yi second lycée de Koungheul bi bu ñu fu ñu taxaw nii nga xam ne bâtiment yi daanaka pare na bon léegi nag lu ñu sañoon foofu sax la ñu jëm amul lu ñu sañoon mais dañ koy def dès lundi dañuy wax ne élèves ñu regagné lycée bi maintenant yi si manqué yëpp dañuy xool naka lañ koy def ba saafara ko lu ci gën a am solo mooy ndox mi loolu dafa am solo lool mais comme que dañu am problème ba léegi seen eau ko branché mais teg nañu beneen pexe bu ñuy permettre dès lundi dañu am jéem am ndox fii si lycée bi du pouvoir dinañ permettre élèves bi at enseignants yi commencé exercer wo fii au niveau du euh, lycée la beneen aspect bi mooy courant bi aussi il faut ñu jëm ko indi parce que aussi installation yëpp gis nañ ko lampadaire yaa ngi installé nañ ko installé nañ fi ay ventilo dans toutes les classes ça aussi c' est vraiment extraordinaire installé nañu ay climatiseur dans les bureaux des du proviseur du censeur et cetera pour wane ne nag donc conditions yu bëri réunir il ne fait il ne lu si des daal mooy indi ndox meex courant bi loolu du amee rek vraiment dootuñu waxati dara et tout pour que ndox meex courant bi mun a ñëw nu mu gën a gaawee mais dès lundi élèves yi dinañu ñëw ak enseignants yi commencé fii di jàngale fii si lycée bu bees bi loolu daal lañu bëgg parce que bâtiment bi moom kenn mën ci wax dara si loolu ñu ngi remercier le conseil départemental ak sa président madame Socé Diop Dione bi nga xam ne moo ñu permettre ñu am lycée bu mel nii ici à Koungheul loolu laa ñu ngi koy sant di leen gërëm di leen remercier aussi euh, tous les acteurs ñoo xam ne ñëpp ñu ngi yëngu si wàllu éducation parce que en commençant par l'IEF les enseignants les parents d'élèves tout le monde ñu ngi leen di remercier parce que Koungheul dafa nekk département boo xam ne dafay dafa xarañ dafa wane xarañteem ci wàllu éducation parce que chaque année ay taux yu élevé am ren amaat nañu yeneen taux yu élevé au BFM on est quatre-vingt-seize pour cent euh, à l'entrée sixième on est presque pour wax leen rek fii en général dans la région li ñuy wax jàngale ci kanam dañuy wax département de Koungheul bu boobaa ñu ngi koy remercier encore donc euh, tous les acteurs surtout lief nga xam ne moo yore secteur boobu donc ñu ngi di remercier ñaax di leen ñaaxaat pour année bi aussi ñu amaat résultat yooyu wala ñu am résultat yu ko gën loolu aussi ñu ngi leen koy ñaan bu baax a baax loo amoon loolu la amoon lu mu leen lu may wax ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam jërë ngeen jëf voilà merci donc euh, nous sommes aujourd'hui ici au niveau du second lycée de Koungheul pour terminer la tournée traditionnelle de la rentrée des classes. Nous avons fait donc le tour de la commune avec euh, la délégation et nous avons constaté que euh, au niveau de personnel enseignant, tout le personnel est sur place au niveau du public et au niveau du privé. Maintenant, c'est au niveau du privé qu'on a constaté que les enseignements apprentissages ont commencé. Mais dans les écoles publiques, ça tarde aussi parce qu'on n'a pas encore assez d'élèves. Et ça aussi, il faut que les parents d'élèves nous aident à faire venir les enfants au niveau des écoles pour qu'on puisse démarrer les cours le plus rapidement. En tout cas, nous avons donné des instructions aux directeurs et aux enseignants de commencer avec les élèves qui sont sur place. Donc, il faut que les parents fassent donc euh, la sensibilisation, donc pour que les élèves puissent regagner le plus rapidement donc les, les classes. Le problème que nous avons, c'est au niveau de la case Là aussi, nous avons constaté que, en tout cas, les locaux ne font pas l'affaire des élèves. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Et ça aussi, nous allons voir avec la CNO, avec euh, donc, euh, la mairie, comment on va faire pour rétablir l'eau le plus rapidement, parce que ne peut pas laisser des tout petits comme ça sans eau. Donc ce problème-là, ça la répète rapidement localement. Mais l'autre problème, c'est le bâtiment qui pose problème. C'est un En tout cas, après cette tournée-là, moi, faire une note sur ça pour alerter le niveau central pour qu'on puisse construire une nouvelle case au niveau de la commune de Kungol avec le nouveau modèle. Parce que le nouveau modèle est plus accueillant et plus vaste. Donc, il nous faut donc une nouvelle case au niveau de, de Kungol pour accueillir les tout petits donc, au niveau de, de la commune. En tout cas, le plus grand souci, c'est l'ouverture de ce lycée-là. Vraiment, on vient de le visiter. C'est un joyau. Vraiment, c'est un que le conseil départemental a conseillé. Et pour ça, on félicite Madame Sosé Diop la présidente du conseil départemental. Elle m'a appelé, elle est souffrante. C'est pourquoi elle n'est pas dans, au niveau, elle n'est pas venue pour faire la tournée. Et nous avons constaté qu'ils ont construit vraiment un joyau. Parce que c'est un lycée d'excellence avec tous ces bâtiments-là. et nous ferons le tout pour le faire fonctionner dès lundi prochain. Malgré que nous avons noté que l'eau n'est pas encore là, le courant n'est pas encore là, mais nous avons pris, nous avons pris une alternative comme quoi qu'on va faire, on va installer d'abord un puits avec les sapeurs qui vont nous aider à alimenter le puits en attendant que les branchements euh, d'eau avec la Seno puissent se faire. Nous allons aussi saisir, euh, saisir euh, donc la, la Sénélec pour que le courant aussi puisse venir ici au niveau du Kunga, du lycée de Kunga. En tout cas, nous avons donné des instructions comme quoi que dès lundi, que les élèves viennent de gagner donc les nouveaux locaux de ce lycée-là pour qu'on puisse démarrer les cours ici au niveau de, du lycée-là. Je pense que c'était ça l'essentiel. En tout cas, nous félicitons encore tous les acteurs qui tournent autour de l'enseignement, de l'éducation, euh, ici au niveau du département de Kungol. Comme vous le savez, hein, c'est un département qui fait d'excellents résultats au niveau des différents examens. Cette année aussi, on a encore de très bons taux élevés au niveau des résultats, que ce soit au niveau du

Euh, parce que tout le monde euh, y met donc de son de son sel pour que les résultats puissent suivre au niveau des euh, au niveau des, des élèves donc ça aussi je pense que c'est une bonne chose Heureusement que c'est un département qui vient de dégainer. Bon, on avait un lycée, mais le deuxième lycée, c'est à se trouver dans, une, dans un SEM. Mais le conseil a tout fait pour construire ce joyau-là et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de ce lycée-là parce que vraiment, la construction est vraiment magnifique. Moi, à Dakar, on ne trouve pas de lycée pareil. Mmh. Quand on l'a visité, ça, ça, a été une grande surprise pour nous. Mmh. Et pour ça, nous remercions encore une fois vivement donc, le, la présence du conseil départemental. Voilà, je vous remercie.